برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا wa mawlana muhammad rasulillah ñu ngi woon ci naafila semaine bi euh, dimaas ba ci alxames lañ taxawoon te ñu ngi war a wax naafila ajuma ajuma nag dafa bëri luñ war a def maa ngi njëkkee la guddik ajuma ñaari rakk dong lay doon rakk bu ne fatiha nga ciy def fatiha ba mu jeex nga jàng isa zulzilatil ard silsaalaha wa axrajatil ardu asqaalaha wa qaala al insaanu maa laha yowma isin tuhaddisu axbaaraha bi anna rabbaka awhaa laha yowma isin yasduru nnaasu astaatan liyuraw acmaalahum faman yaamal misqaala saratin xayran yara wa man yaamal misqaala saratin saran yara loolu fukki yoon ak juróom nga koy def defaat lu mel noonu fukki yoon ak juróom naafilaa guddi gaa ngoog taayal selmal jeex na mu dekk des naafila bëccëgu ajuma naafila bëccëgu ajuma dangay ngay boobu moom xaw naa gudd da ngay jàng faat moom it ñaari raaka dong lay doon bu guddi ba anas moo ko solo bu bëccëg ba <clears throat> eh, ibnu moo ko solo kooku mooy fóodee xeet bi ñaari raaka doon moom dangay jàng faatiha benn yoon jàng ayatu kursi yu benn yoon jàng xul xawma bi rabbil falaq fukk ak juróom sëggi-siggi defaat faatiha benn yoon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 waaye xanaa boobu dañ koy defal beneen émission allahuma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim juróom-ñetti fukk yoon jot nga roxo kon nag jullit yu góor yeeg yu jigéen ñi doon déglu di ñu seetaan ci fayda tijaani point com ñu ngi siyaare kër diine yëpp di ci jël jiital sama kër sëriñ Cheikh Ibrahim ibnu Alaaji Abdallah di nuyu xalifaam xalifa général seneraal Baay ñu ko sëñ Maahi Ibrahim Ñas di ko ñaanal ne koy hen bi diis na waaye lum diis diis yal na ko lu mu diis diis yal na ko yàlla xenu xilaafaam yëpp yal na nekk ndam yokkute damay wax toujours ne ilaa goo gis da nga yegg ca dëkk ba te doo ca la nga bëggoon ba mu des ilaa Baay Ñas <laughs> ilaa Baay moom boo yeggee rek ndax benn woykër woy na ko ne ko yi bu leen ñu sonal ak coow yàgg nañ feeg yéen te kenn xamul yàlla bi bay ñëwee rek lañ xam yalla kon moy maarifa kon ko àgg ci bay xam yalla loolu doyna julit ko xam sa sharia xam yalla moy xam nga sharia xam nga xaqiqa ñi ñuy nekk kër diine di leen ñaanal di leen ndokkeel di ndokkeel sama mbokk yi nga xam ne fan yeneen lañ jógee ko ci màggali xaadima rasul ci safar ci mayam gu réy ga jagleel ak yàlla ga xaasiyatu xaas gam ko defal ci safar ba mu ñaan mosul ñaan dimbal ci leen waaye nee màggal gi moom na ko ci gaa yi jàppale màggal googu nag gaa yi dem nañ màggal nañ ba pare ñu ngi ñaan lépp luñ fa ñaan yéen a koy la nangu te réew mi bokk ko ñu ngi nuyu waa Tiwaawan di leen ndokkeel kenn ku nekk sa gis-gis ak sa dégg-dégg dëkk la boo xam ne ñaata at ñu ngi gàmmo ñaata at ñi tàntal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaata jotaale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am Tiwaawan ñaata tàntale yonent bi am Tiwaawan kon bu demee bañ kañ jiital di suma sëriñ di suma soppe di soppe sama soppe muy Assane Fall te ñaari tali mooy sëriñam Assane Fall boobu doon suma soppe contre sëriñ a soppee sa sëriñ la te nag ñu kontaan lool ci dem gi dem Medina Baye kàddu yu rëy yam fa yëkkati ni kàdduy xam-xam du leer yalla lo ñu bëgg suñu khalifa wi tontu momit mu tontu ko kàdduy xam-xam kàdduy leer kàdduy responsabilité mu dem ci imaamul akbar momit itamit mu tontu ko kàddu yu gën faa rafetati imaamul akbar moom it tontu ko tontu kàddu yokk gën a leer gën a rafetati gën a neex nga xam ne boo tegoon ñoom seen ñaari wax yi doo ci xam boo ci jël li ngay mën a def rek mooy jël ñaari ñëpp ndax yëpp a mat kon ñu ngi ziyaare Sénégal gépp di wax ne ñun li ñu yàlla jox ñu rek la ko yàlla jox benn kër rek ci Sénégal ci yi ma tudd doyoon na Sénégal doyoon na réew كون ني سيار نيم نوي نيوب سين سوب سين خالد الامام محمد جملو والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وراء الف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جوخ ني نان